Thank you. Mbacke eh, njiital fondation éducation pour tous a Touba waaye kaddu yi ñu sànni mooy di rafetlu tey cérémonie bi nga xam ne teewee nañ ko si njiital suñu xalifa Serigne Mamor Mbacke Murtada nga xam ne moom moo indi Al Azhar fi mu nekk tey ndax sëñ Murtada bi mu fiy bàyyi ko en 2005 mi ngi bàyyi institut bi ci niveau bac donc sëñ Mamor moo ubbi cycle universitaire yi ba tey xale yi mën a am ay raaya yi même bu fekkee ne basalier yi am nañ fa ay yu am solo tey sëñ bi doon leen jox ay seeni ay décoré donc muy lu am solo ci wàllu njàng muy jéego yu am solo di avancement bu nga xamante ni la tey vraiment defe naa ne yoonu murid bépp ko war a rafetlu ci liggéey bu rëy bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké bàyyi wax na ko fi Khadim Rassoul fondateur des instituts Al Azhar mais Serigne Mame Mor ñëw yokkaat ko ci euh, vraiment tey ñu am dëkk ak xol bu sedd ñun lii rek la ñuy xeex ci dëkk bi dëkk bi dëkku xam-xam la moo taxoon Serigne Touba sañc ko xam-xam ak jàmm yàlla la waxoon xam-xam boobu nag Cheikh Mouhamadou Moutada daf cee liggéey liggéey bu rëy sëñ Mamour continuer ko ñun itam ñu ñëw bëgg cee indi suñu wàll suñu contribution mooy éducation pour tous à Touba jàpp nañ ne bépp xale bu juddu tey Touba suñu devoir la ñu taxawu ko mu jàng ndax jàng àq la ak yelleef ci xale boo xam ne gane na àdduna jàng nag buñ ko waxee lépp ngi ci biir jàng alxuraan mi ngi ci biir ndax mooy jàng xam sa diine ci li ñuy njëkke waaye nag jàng ci mboolem xeetu yi mi ngi ci biir l'essentiel rek na dëppoo ak leen diine comme ni ko Serigne Touba Serigne Mountakha Bachir bëggee mooy xale bi bu jógee ci daara bu jàngee alxuraan ba wàcc entre 13 ans ba 15 ans foofu ñaare bu ñu encadré xale bi rek dafay teel a dugg ci liggéey boo xam ne waru ci woon a dugg tey jii suñu xeex mooy xale boo xam ne yóbbu nañ ko daara à 6 ans su fa defee 6 ans muy 12 ans maximum mën na wàcc alxuraan ndax léegi macha allah Serigne daara yi ay jàmbaar lañu mm. foofu nag dañu bëgg a xale bi encadré ba mu am bac ñun suñu objectif mooy bépp xale bu juddoo Touba minimum mooy nga am bac soo mënee def sa cycle universitaire parce que tey xam nga liggéey bëri bi Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mountakha def ubbi université Cheikh Ahmadoul Khadim Serigne Mamor def ko créer ay université mais université yooyu dañoo bëgg doomu Touba yi nekk fa di jàng am xam-xam ci fànn yëpp ci domaine médecine science ci fànn yëpp parce que dañu jëm ci àdduna mooy àdduna ba nga xam ne xam-xam mooy mooy mooy mooy mooy mooy challenge bi parce que Sëñ Muntaxa dafa wax lu am solo wax boo xam ne dañ ko war di jàngat chaque jour mooy jamono bu njëkk ba judd moo amoon jamono bii ñu nekk xaalis moo am mais jamono bii di ñëw xam-xam mooy am te loolu avec les nouvelles technologies ku nekk war na ko gëm kon tey suñu xeex di xeexu sëñ Mamour ngeen dégg li mu wax ak coono bi muy daj ci xam-xam mooy ñu takku Touba yëpp jàng génération bi ñëw ñëpp jàng éducation pour tous surtout nag les filles sëñ Mamour wax na ko léegi nañu bàyyi xale yu jigéen yi ñu jàng xam-xam c'est la clé du monde xam nga dañu wax naan xaalis mooy clé du monde non non non xam-xam c'est la clé du monde le pouvoir c'est la connaissance nit bu amee xam-xam dafay am pouvoir